doon nañu amal ab lël bu jëm ci wàllum information ci corruption sa la xam xamlee ne dossier yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def jël ko jébbal ko procureur maanaam suivi ba nga xamante ni moom sa war maanaam amu ca te nag ñoom amuñu lenn loo xam ne war nañu ko mën a wax procureur ñoom Seynabou Ndiaye Diakhaté ñoom nee nañu lenn rek la ñu man maanaam defar ay dossier jël ko jébbal ko procureur procureur nag moo xool moo yor cëggal guyam ba xam daf koy topp wala déet ñoom amuñu benn sañ-sañ boo xam ne daal danañu ko teg ci kaw procureur ngir dossier boobee maanaam dem ba jeex ñoom Seynabou Ndiaye jaxate li ñu bëgg maanaam mooy texte yi ñu daal di koy sopparñi bu boobaa nag ñoom seeni sañ-sañ daal dina yaatu lool waaye nag jamono ji maanaam fi ñu leen yemloo daal gàtt na lool mu ngi ci yéenekaay gi di Rewmi Quotidien yéenekaay gi di Le ñu xëy fekk fa professeur Moussa Seydi moom nag daat nay weddi Abdoulaye Diouf Sarr ndax ministre bi ñu dénk wàllum wér gi yaram gi ci réew mi di Diouf Sarr démb dafa waxoon ne deuxième vague bi virus la bu virulente la maanaam bu soxor la loole nag professeur Moussa Seydi daat na koy weddi nee na amul fenn fenn foo xamante ni wane nañ fa ne vague bi virus bi moo gën a garaaw moom professeur Moussa Seydi nee na lu jëm ci wàllum ubbite centre de traitement yi yeex na lool yeex na lool te soo moytuwulee ñi nga xamante ni nag ñoo amee jàngoroy coronavirus te nag soxla oxygène maanaam ñu ñàkk lal bu ñu tëdd yéen kaay gii di Walf Fadjri nee na am na ay cas communautaire yoo xamante ni njiitu réew mi di Macky Sall war na ko lijjanti ci lu jëm ci woppi coronavirus ci ndax màggalu Mbàkke Kajoor gi appelu laayeen yi Poroxaan Kazu Rajab ma ngi wàcc ànd nan la état di def ak xew yi te ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi arrêté bu ministre de l'intérieur dañu ko daal di xotti traite ndax ñoo ngi amal seeni activité yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na appelu laayeen bi rek doy na si ab takk ndax ñi nga xam ne ñooy laayeen yi maanaam seen appel bi jamono ji ñoo ngi koy waajal good fine yéen a kaay gi di enquête nee lu jëm ci wàllum ñaareelu vague bi ay moyen la Sénégal manqué ngir nag mën a jàmmarloo ak moom a kaay gi di Dakar Times xëy di wax ak askanu Sénégal ci lu jëm ci wàllum état d'urgence ak projet de loi bii nga xam ne maanaam ñoo ngi koy bëgg ci assemblée nationale loi bi journal bi li mu gis nee na ab loi bu dangereux la loi la boo xamante ni baaxul ci réew mi te nag lu xew ci réew mi ba ñuy votal Macky Sall ab loi d'habilitation moo fi amul li am ci yéen a kaay gii de la turbine mooy Mansour Faye ak Macky Sall amul lenn loo xamante ni jàngee nañ ko ci Abdoulaye wadd ak Karim wadd ndax Abdoulaye Wade mi fi doon negg neggal doom ji di Karim Wade ak askanu Sénégal ak mer mi nga xam ne mujjoon nañ ko mere Abdoulaye Wade ak doom ji amul lenn lu ci Macky Sall jàngee ndax Karim Wade fa ko bàyyi tegoon fa la Macky Sall teg jamono ji Mansour Faye Alioune Tine moom nag nee na Mansour Faye dañu ko war a arrêté giraawaali sur giraawaali tojange sur tojange maanaam Mansour Faye li muy def ci ay tojange ci réew mi loolee bëri na lool te nag mujj gi sax dafa yàqal Macky Sall yéen a kaay gii di direct news ak réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na Abdoulaye Diouf ra jamono ji dafa lank kandaare bañ a leeral 64 jàpp 90 milliards yi nga xam ne joxoon nañ ko ko ngir mu xeex si coronavirus ndax bëri na ay ministères yoo xamante ni maanaam leeral nañ waaye Abdoulaye Diouf Sarr dafa lànk bañ a leeral neuf mois ma nii amul benn centre traitement gouvernement boo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr na ko jamono ji sax mën na ñoo wax ne moom Abdoulaye Diouf Sarr dafay fonto gi ko li ko ñor maanaam mooy business bi nga xam ne moom lay def ci woppi coronavirus kàddu yu Mamadou Lamine Diallo bi nekkoon Touba jamono ji tëj nañu ko xaalisu coronavirus bi ana fan la dugg samp laaj ndax ñi nga xam ne ñooy taximaan yi waroon nañu leen a jox lu toll ci quatre cent cinquante millions te ba léegi nii ñoom taximaan yi soo noiré jotagu guñu si ñoom ñuy laaj xaalis boobee ana fan la dugg beneenu xaalis boo xam ne jëm na ci coronavirus te ñuy laaj fan la dugg journal bi di source am moo si xëy tey nee na ministère développement communautaire équité sociale bi Mansour Faye jiite woon a joxoon nañ ko ay milliards ngir mu jënd si ceeb ak suukar ak yu si aju waaye nag jamono ji Mansour Faye bi ñu ko laajee nee na 60 milliards yu fegg 709 millions la dépensé Samba Ndiobène Ka maka fa wuutu moom 60 la gis yu toftal 654 millions bi ñu laajee dash bu ministère développement ma communautaire di Aliou Sow moom 64 la wax Abdoulaye Daouda Diallo moom na 63 milliards bi nee na en tout yi nga xam ne joxoon nañ ko ministère développement communautaire équité sociale wax ji juyoo na loola Samba Ndiobène Ka ak Mansour Faye ak Dash bi ak Abdoulaye Daouda Diallo kan moo ci wax dëgg la journal bi xëy di laajte yéen a kaay gi di Stades li mu gis nee na am na ay joueurs yoo xamante ni Aliou Cissé bëggu leen a gis ci équipe